gis gis naa gis naa vidéo yi gis naa ni ñëw nga. waaw kontaan nañu. mais daa ñëwaat sax. ay kontaan nañu damay bàyyi bu nekk daal mu ñëw kër. kontaan nañu kontaan nañu ñu bëri rek. waaw au nom de toute la famille Seck on est content. te ñun te ñun ñoo bokk nag. waaw ku ñu bëri rek. waaw ñu ne soo koy gis nga rek. waaw ah. gars yi maa bokk waaw. dëgg la benn kontaan naa daal mu ñëw rek. kontaan naa waaw loolu bi moom suñu papa. waaw ah, dëgg la benn yoon la am sa daje. Ah. dem ko bureau amee suñu. dëgg la ñu waxtaan daf may conseil dana yàlla teg si yow mu jàmm fekk ak ak jàmm ak salaam dem teg fa jàmm fekk ak fa jàmm incha allah ah en plus yow da ngaa nag suma suma frère suma xarit nit dox ah <laughs> moom moom moom dañu dafa yàgg mais dama changé tur bi de waxuloo dafa yàgg fight à que ma ma nekk ci kanam. mais nit nit nit laa ko tuddee. nit la nit nit. est ce que doo bàyyi nit dof bi xam naa du man a yëngu quoi. mais boo ko dee nit dof dina mën a yëngu. nit nit nit la xam ne. Ah. dof moo tax ma ne ko léegi nit nit daa lay wooyee man quoi. waaye je suis content. yéen gars yi je suis content. merci mais bon voyage. voilà merci et bon